asalaamaaleykum sama gars yi bienvenue sur CTGHT cette semaine def na cette semaine bi waa États-Unis interdire Huawei pour muy liggéey ak ay entreprise américain def na cette semaine ba ñu yore portable Huawei di laajte ndax seen portable amati na valeur def na cette semaine ba gars yi di laajte sax est-ce que léegi warati nañ jënd portable Huawei yaakaar naa ne jot na tey ñu wax si e pour loolu il faut que ñu commencer ci commencement lépp mi ngi commencé ci février 2018 ba six agences fédéralu États-Unis tuumaalee ni Huawei mi nga xamante ni moom moo nekk deuxième ci vente mondial des smartphones ci ginnaaw Samsung mais ci kanamu iPhone que ni daf leen di espionner ngir waa Chine ñu jóge foofu dem avril 2018 waa États-Unis tere Huawei muy liggéey ak entreprise télécommunication wu américain mooy entreprise yuy gérer woote beeg wuyu bi ñu jógee foofu dem août 2019 waa États-Unis génnee Huawei ci marché 5G États-Unis même bu fekkee ni Huawei moom moo nekk leader mondial ci marché 5G. ñu dem décembre 2018 waa États-Unis laaj ngir ñu jàpp directive financière Huawei ndax dafa violer embargo contre l'Iran ñu teg ci tuuti waa états tuumaal ni waa Huawei dañuy def fraude financière ñu teg ci tuuti waa États-Unis tuumaal waa Huawei dañuy def vol de secrets commerciaux et technologiques waa Huawei jàpp ni lépp lu leen di tuumaal amul ñu porter plainte loolu moo waral le 14 mai 2019 waa États-Unis yokk taxe produits chinois yépp vers les états mais yamuñ foofu le mai 2019 waa états dugal Huawei list noire loolu moo tax Huawei mënutul liggéey ak benn entreprise américain comme Google comme Microsoft comme Facebook ak comme Apple entreprise yu mel comme Google ak Microsoft ñoom bañu ñu liggéey ak Huawei mais comme que ñoom ay entreprise américain leen te décret bi Donald Trump signé dafa wax bépp entreprise américain du mën a ci liggéey ak Huawei ñoom ils sont obligés bañ liggéeyee ci ak Huawei léegi loolu dafa am benn problème parce que Google ñoom ñoom moom Android te Huawei système Android lay doxee léegi Google dafay obligé retirer licence Huawei léegi loolu day tax portable Huawei yi waaj a ñëw duñu am système Android lenn ngeen ci comprendre bu fekkee danga nga yore jamono ji portable Huawei sa portable Huawei di nga yore système Android mais yow boobu mooy dernière mise à bi ngay jot bu fekkee amoon nga portable Huawei avant concerné wu la bu fekkee yore nga portable Huawei actuellement yow concerné wu la portable Huawei yi di waaj ñëw ñoom la concerné ñoom duñu amati système Android mais daañu am benn système boo xamante ni Huawei moom moo ko defar parce que Huawei moom xamoon na ni lii dina ko dal moo tax mu préparé woon benn système système bi mi ngi tudd Hongmeng OS Hongmeng OS mais système boobu xaw ma ñaata problème la am lenn daal laa mën a wax ci système bi système du jël Facebook du jël WhatsApp du jël Instagram du jël YouTube du jël Snapchat au fait dul jël bëri na parce que ñoom ñëpp ay entreprise américain lañ xam naa jamono ji ñu tool yaay naan i xaama dem wu ci portable iPhone mais leen laa bëgg nga xam que depuis bi ñu jëlee décision bi ñoom Google ñoom Microsoft même Apple ñoom ñu ngi si ginnaaw Huawei parce que décision bi arrangé wu leen parce que depuis ba ñu signé décret bi chinois yi dañu rallié wu si ginnaaw Huawei donc ñoom ñëpp dañu def boycott produits américains comme boycott Apple léegi ñoom bu ñu defee loolu produit yeneen entreprise yi dañuy am problème mu produire dañuy am problème mu jaay parce que bu fekkee iPhone nga yore boo xoolee si ginnaaw iPhone di nga si gis lenn da ngay gis ñu bind designé by Apple mais assemblé en Chine boo yoree portable Samsung boo xoolee si ginnaaw di nga gis ñu bind designé by Samsung mais assemblé en Chine. boo xoolee beneen portable ak portable bu mënti doon da ngay gis assemblée en Chine te chinois ñoom actuellement ñoom ñëpp dañuy dem ci ginnaawu Huawei léegi ñoom ñëpp dañuy jàppale Huawei moo taxit problème bi ñëpp la laal mais itam lenn ngeen war a xam depuis que waa États-Unis signé décret bi ay entreprise yu mag comme Microsoft comme Apple ñoom ñu ngi interpellé seen gouvernement gouvernement Donald Trump di leen wax ni affaire yi bu continuer nii ñoom daañu mujj di licencier ay nit parce que ñoom seen jaay dafa wàññeeku bu baax a baax léegi ba pare bu ñu basé woo ci analyse américain yi ñoom instant yi économie américain subir na cinquante six virgule trois milliards de pertes ak soixante quatorze mille licenciements soixante quatorze mille nit ñoo xamante ni dàq na leen léegi loolu yépp moo waral. le 29 juin 2019 gouvernement Donald Trump ni ni nañu toog ñu xoolaat lan lañu war a wàññi ci décision bi ñu jël parce que décision bi arrangé wul waa Huawei mais itam arrangé wul waa États-Unis cette semaine ci ginnaaw boo ma waxoon Cheikh ndax ma jënd portable Huawei dama naan la déedéet mais lu xew ci huitième semaine bi maanaam le 29 juin 2019 bi waa administration wu Donald Trump jëlaatee dossier bi xoolaat ko parce que affaire bi arrangé waa États-Unis comme que arrangé wul waa Chine maanaam ñoom waawee ñoom dañu toogaat xoolaat lan lañ si wàññi parce que affaire bi boo xoolee waa États-Unis ñoom interdire nañ Huawei pour muy équiper télécommunication yi depuis avril mais yëfu portable yi loolu dafa xaw lëj parce que loolu dafa sonal waa Huawei itam dafa sonal waa États-Unis léegi gars yi dañu bëgg xoolaat affaire yi lan lañ si war a arrangé waat lan lañ si war a yokk ak lan lañ si war a wàññi ñu toog leen tuuti bu fekkee da nga bëgg jënd portable Huawei dem naa la nga xaar parce que affaire yi mën na évoluer bu baax wala comme que mën na gën a bon ka ni mu mel jamono ji bu fekkee façon vidéo yi neex na la di wax ma ko si commentaire bu fekkee da nga bëgg may def comme vidéo yu mel nii di wax si actualité technologie wax ma ko si commentaire yi c'était c'était GHT ma leen di jox di gaye si beneen vidéo incha allah. ne reenu grab ñoom dañuy tàngal buñ ma gisee jënd glace golden boy xale 70 kara say dàlla dagg tax bés bi yàggul ne supara yenn MC rus naa leen démentir ne mag buy fen man dama takk sama logo takk mag bu pro